Des ko du yomb ndax man ma mënu a comprendre. Nabi Vision. ay kilifa rawatina ay kilifa yoo xam ne dañ leen a jox cieur ku ci melni ni tim jouer un rôle majeur pour que sunu démocratie bañ egg terre mëna gis dëgg bi mëna gis dëgg bi ne duñu ko wax waaye dañuy jéem attaquer ño xamné gouvernement bo xamné bam fi togué ba légui lépp lu mu teg comme acte dafa nek luy jëmale réew mi kanam dafa nek lo xamné ne dafa jëm ci bonne gouvernance dafa nek lo xamné ne dafa jëm ci transparence teguñu benn acte bu malveillant nga né da ngay attaquer ñoñu ci lan ci le port de Dakar

est-ce que vous savez que Macky Sall moo ko xañ Sénégal bëgg lu neex France bëgg lu neex Macron Macky Sall xañ waa Mali le port de Dakar et pourtant français même si ñu en conflit avec les deux yi. Naby d'opérer dañuy continuer di économiquement avec les yooyu parce que nous comprenons que l'économie n'a rien à voir ak tension yi nga xam diplomatiquement de état à état français nous ngi opéré Iran ñu ngi opéré Liban nous ngi opéré Syrie nous ngi opéré URSS Russie américains nous ngi opéré Iran ñu ngi opéré partout dans le monde waaye moom Macky Sall Sénégal nekk dëkk bu ndóol un pays pauvre un pays boo xam ne hôpitaux yi sont sous-équipés yow sunu principale source de revenus. bëgg lu neex tubaab bi ba nga ne ko xagnou ay milliards yi milliards yi milliards Alioune lolou mo jara wax c'est Macky Sall économiquement qui a trahi le Sénégal et si nous avons un gouvernement sérieux et je sais que nous avons un gouvernement sérieux nous poursuivre Macky Sall pour haute trahison économique par rapport au port de Dakar Walidouf Diouf Bodiang defu assenir. assainir le port de Dakar. Wali Diouf Boyan, en Sénégalais, patriote, bëgg des deful lu dul yi nga régime bu bi def nañ ko ci port ci ay emploi fictif deful lu assainir li nga le port de Dakar kon boko ko gërëmul ko Lillahi wa rasuuli manul ci ay mbiram ci ay ñi réew mi xam gis nañ leen yow xam nga leen gis nga quand s'attaquer aujourd'hui au gouvernement de Ousmane Sonko. vraiment c'est vouloir noyer le poisson parce que sommes au Sénégal xam nañ ko xam nañ gouvernement Ousmane Sonko Sénégal dégg El Malick Ndiaye aéroport bi facturation, yi nga xam milliards yi Sénégal Alioune Tine lillaahi wa rasuul boo leen mënul jàppale mandul ci seen bi parce que comme ni ma ko waxee rek le peuple sénégalais Ousmane Sonko yee na leen kenn nelawatul beneen bi ci topp damay jaajëfal ki nga xam ne mooy coon ñaa parce que ay jamono daloon naa ci kaw coon ñaa parce que dama jàpp ne yoon bi mu jëloon baaxul ndax munoo ñëw Sénégal gis situation bi fi mu tolloon

jëm ci wàllum agriculture ma ko ciy jaajëfal xam ne yoon bii mu jël yoon bu baax bi la bu mu ko wàcc mukk Naby Vision encore une fois di wax les patriotes gars yi gendarme patriotiquement di nuyu ñëpp di wax ne que carrément depuis démb yi génn na commentaire ma ci waxuma ci parce que xamul tax parce que daf maa bettul ndax nit kenn du ko jiital par di ko fa xastal benn deuxièmement mooy dañoo am benn leader boo xam ne dafa xam Sénégal xam fu mu jëmale Sénégal xam fu mu war a fa Sénégal war yegg mu ànd kook ay natom ngom yo xamanteni insa mi tolni duñu joxe bop di roccu làmmiñ buñ jitalé nit duñ la topp la fa xastal. benen bi ci dess moy mu am ay militants ak ay sympathisants yo xamanteni insa mi tolni dañu dañoo sen leader ba pare wolu ko ba pare jox bop jox lépp. xamne ka karama ki ni sen seen njàqare moom moo tax te mi tolni mu sacrifié won léppam ñëw fi nga xamne moy Sénégal pour doxal. te mu xamne ka karama fépp fo xamne institution la. képp kuy sénégalais wala képp koo xam rek tey instant mi nii tey digne fils de de sa pays nga am nga droit tey instant mi nii tey am fa la fa dagaanal sa baat ndax pencum ndaw réew mi lañ wax pencum ndaw réew mi da ngeen doon seetlu bu njëkk ba pencum ndaw réew mi ñoom ñoo fa doon nekk ay boromi alal ñoo fa doon nekk ay opérateur économique ñoo fa doon nekk ay typique politicien ñoo fa doon nekk. ñoo xam ne buñ xasee bu dugg dañuy ñëw tey instant bi bu campagne jotee yow ñëw ci population bi xamal leen carrément ñun yéen lañ war a teewal fële parce que pencum ndaw réew mi la mais bu ñu demee ba fi nga xam ne mooy ci pencum ndaw réew mi mooy fàtte nañ ñi nga xam ñoo leen faloon léegi dañuy nekk député wu benn nit wala ñu nekk député wu benn parti Naby Vision lépp loo xam ne parti bi neex na ko wala lépp loo xam ne parti bi lay arrangé moom da ciy dox di ci taxaw lépp loo xam ne benn nit lay lay neex da ciy dox da ciy taxaw mais xool li nga xam te instant moom population bu soxla mu ciy wax loolu moo taxoon assemblée nationale ba leneen mu yàqu benn deuxièmement mooy son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñëw tey dissoudre ko bëgg a yeneen élection yoo xam te ne sam tenir ku ci nekk Sénégal di ci gis sa bopp léegi man sur ce ci la wax ne que carrément ne man leader bii nii Sénégal yéex na ko am ndax bu ko teeloon a am te instant mu toll nii kon secteur yi nekk bi Sénégal yëpp yëpp yëpp tëb tey bu ci nekk dina développé wu ndax balaa ngaa laax jaay da ngay laax lekk nit ki mun a nekk ci benn domaine boo xam te instant bi daf ko maîtriser ngay jëli beneen nit ca àll ba koo xam ne maîtriser wul xamul domaine ba na mu demee nga jël ko teg ko fa di ko wax ne ko carrément kaay wax ci domaine nit ki munoo nekk mécanicien ñu naan la kaay wax ci kaay ci santé nit ki munoo nekk docteur ñu naan la kaay wax ci li nga xam ne mooy économie nit du nekk économie su ñu naan ko non kaay wax ci justice non non non non

mu jëlal leen koo xam te instant bi toll daf leen a war a bi représenté kon tey instant bi nii képp koy handicapé bi Seydina Ousmane Sonko la lancé défi xamal ne que carrément ne yow mi nga xam te yow la ñuy jàppee nit ku matul tey utal naa la koo xam dina la teewal fi nga xam ne muy pencum ndaw réew mi nga xam ne carrément sa àdduna nekkatul ay tàllal loxo sa àdduna nekkatul tey nga jàpp ne que carrément lépp loo am rek nit moo la ko war a defal déedéet da ngaa war a jóg ñafe ji bien vrai que ne am na ñoo xam sam c'est des handicapés yoo xam ne dañoo dañoo doon des patriotes gëm lii ñi gëmuñu tàllal loxo ki nga xam ne mooy mécanicien ak ki nga xam ne tey instant moom mooy marchand ambulant ki nga xam ne mooy médecin ki nga xam ne tey instant moom mooy whatever kenn ku mënti doon tey seen mu ngi biir assemblée nationale te Seydina Ousmane Sonko tànnale leen ku ci nekk mu mën laa représenté fi nga xam ne mooy pencum ndaw réew mi ñeneen ci des nag du wax ci ñoom parce que ñoom moom instant bi ñu toll nii dañoo ñëw juste pour lan pour contrecarrer li nga xam ne moom mooy gouvernement bi liggéey bi mu bëgg a def tey pour Sénégal dem kon kooku doon xam pro problème du gouvernement actuel bi mais problème am mooy Sénégal warta réussir parce que bu réussir seen défaite na te ñun ñëpp dañoo war a àndandoo jàppale gouvernement yooyu pour réussir liggéey bi nga xam moo la war a def kon gars yi. Naby Vision patriote pour toujours. nañ ko gëm xam ne que carrément majorité à l' assemblée nationale non ñun ñoo ko war a jël te incha allahu rabi dañ koy jël jaajëf.